opposition qui se cherche ñun ñëpp hein Thierno Assane euh, euh, Sall les Bokoum les euh, Bougane Gueye Dany encore pire ñoom ñëpp ils sont dans une logique d'opposition qui se cherche mais nañu dem utiwaat loo gën a am consistance moi je dis j'ai fait 35 ans d'administration dans cette administration là boo ñëwee tey nga am un premier ministre mu nommé un ministre un ministre c'est un homme de confiance mu jël def ko def ko foofu mu am ce qui s'est passé très rapidement on a démis monsieur Cheikh Dieng de ses fonctions mhm. général yéen c'est de bonne guerre ngeen ànd ak moom c'est de bonne guerre hein, parce que yéen vous cherchez des euh, l'os à grignoter c'est normal déglu ma rek euh, mais xam nga ko on a parlé du voiture de 80 millions qui a parlé ñëpp ko wax et moom dañ ne dañ ne marché bi yaa wax marché bi marché bi nii la demee mhm. lan moo jur marché bi lan lañ ci wax. ñii nee nañu dañ jël quatre-vingts million ñu jël quatre-vingts ñu ministre ne ko delloo ko mu delloo ko ñu ne dafa wëlbatiku jëm jël xaal et cetera et bu bëgg a dugg dans les détails mais je dis que. Mm-hmm. un ministre un premier ministre c'est pas n'importe quoi surtout un imbri un président boo xam ne tey tey bu fekkantoon du woon yéen tey moo nekk le président de la république yéen yéen a ko gàllankoor jusqu'au bout yàlla ne moom moom la jox lépp mu joxoñ ñëpp ànd ak moom. yooyu du yëfi coono c'est l'état sénégalais c'est le peuple sénégalais qui est avec Ousmane Sonko. qu'on le veuille ou non c'est l'homme à abattre mais mën nañ ci dara. day du sonal seen bopp rek. ma ne il n'est pas du tout déçu. pas du tout alors. daanaka yow doo déglu. Mm-hmm. Euh, dégg nga li ma dégg nga li euh, le président Diomaye wax. bañ ko ne euh, dafay lor ñu sa mu ne je waxuma lor ñu ne regardez moom fauteuil c'est clair. loolu ça clôt le débat mais vous trouvez toujours que bu leen fàtte génn fii. Bref, bref mhm. je dis administ faisons confiance à notre administration man loolu laa loolu laa gëm. maanaam il doit pas y par rapport non je n'ai pas dit ça mais nañ ko déglu man wóor na ma ne le Ousmane Sonko je connais lii dana leer nañ mais nag du topp. ah oui oui dire il faut démettre les deux. c'est immédiat non mais war nañu ko leeral quand pour xool ndax dàqu ñu également Cheikh Dieng par par erreur a eu des preuves brandies parce que mbir la voilà moo que le par plaisir bu fekkente ñii bu ñu yëngatoo rek cette opposition cette nouvelle opposition là bu ñu yëngatoo rek. non du ñun yéen la loolu kenn du sooy daw sooy daw di gëstu

il veut pas tomber. je vais me carrer sur wax léegi nee nga jàppee. non non non non non maanaam ci xeex bi mu nekk moom moom gi la koy wax Cheikh Dieng nga man faraluma ko. mais très sincèrement dafa ñëw ci tànku jub jubbante jubal. ci loolu. mais si jubal jubal ci lañ ko rey. non non lan moo war ñu def ko. lan la c'est clair c'est net et c'est précis. quoi c'est clair c'est net et c'est précis. vous étiez dans l'administration vous savez très bien que tous les projets de l'administration tous les projets de l'administration dañuy am ay appui logistique mm-hmm. loolu xam nga ko munoo bañ munoo bañ munoo bañ loolu non pas abattu maanaam tey da ngay gis une société qui gagne un projet les moyens logistiques moo koy mettre à bord les acteurs de l'administration yi ci war a ànd ak moom di ko gunge moom moo leen di mettre à disposition ces moyens logistiques loolu loolu même non mënuñu c'est juste euh, frôler frôler cette chose là. mais li wóor mooy là où nous en sommes. c'est beaucoup plus professionnel. là où non fi ñu nekk nii. munoo leen munoo leen weddi nii. vous avez fait munoo leen weddi nii da ngeen def. lu leen neex ci acte Cheikh Diagne bi parce que non Cheikh Diagne n'est pas n'importe qui un directeur ah. général qui vous dit que lii laa fi fekk j'ai les preuves et lii ak lii moo am génne ba pare ne leen leen woo maa ngi xaar mu woo ma ci yoon waaw tey ma wax ma wax lu gën a garaaw. waaw tey la. Ah, très très bien ça ça dure tey la xam nga dañuy dañuy les magistrats au leur temps leur tempo. non bokkul la ça n'a rien à voir. d'accord très bien ça n'a rien à voir. bay bu la neexee. Euh, très très très bien day yéex yéex. ça n'a rien à voir mon père. je suis désolé ah. mais yéex yéex. mais dana leer waaw dana leer parce que également loolu ngeen ñu jaay muy jub jubal jub jubal jubanti bi Baye Ablaye xanaa foofu laa lay laa rek par rapport ak euh, mbirum ONAS également ak euh, cette sortie bi nga xam ne Thierno Alassane Sall def na ko ci ah jërëjëf euh, Thierno Alassane Sall macha allah ci mm. sortie bi nga xam ne def na ko ngir bëgg ñu indi ci ay leeral lu ma a lu mat a wax la nag ñu bëree bëri fi ñu doon ñu ngi koy sàkku mais pas leeral rek parce que